def mbokk yi ni seetaan ci 28 Pro TV ñu ngi am mbégte ànd ak ci eh, yi nga xam ne moom mooy eh, ñaari rakk ya ca Ndar di 5 septembre moom la ñuy fas yéene waajal nii di ko foofu la ca eh, Ndar di bi nga xam ne moom fa la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul julle woon ñaari rakk yi ñu ngi nag fii nga xam ne moom mooy buntu kër parrain édition 2018 bi nga xam ne moom ñu ngi ko jagleel juróom-ñaareelu xalifu Serigne Touba Khadim Rasoul di Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké borom juróom-ñaari sorol yi moom mi nga xam ne moom mooy parrain bi euh, ñu fekk fii nag euh, ki nga xam ne moom mooy njabootam euh, ñuy waajtaay gis nga nag fii moom la ñëpp di déparé bokk na ci kilifa ak yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew yu bëri bëri ku ci nekk jël nga say matuwaay yi nga xam ne moom moo war yëpp ci bés bi ba nga fas yéene nag jubal yi ca dëkk ba fu ñu fa yeggee nag fa la nga xam ne moom mooy Makabira Gaye foofu nag moom mooy bërëbu escale bi nga xam ne nii moom la ñuy fas yéene toog dalal fa euh, délégation parrain bi ñu fas yéene fa xéewlu buñ fa xéewlu ba pare rek daal di jubal yi ndar nag fa nga xam ne nii foofu la ñuy dalal euh, délégation parrain bi ca kër Mansour Souran gi nga xam ne moom moom foofu la ñuy accueillir ci euh, comité bi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di waa kuréelu ñaar rakka yi kon nag mbokk yi dañuy ànd ak yéen ci li nga xam ne moom moo jëm ci waajtaay bi ci ay interview bu ko defee nag euh, bu ñu yeggee ba ci bërëb yooyu nga xam ne foofu la ñu war a dal euh, fas yéene fa àggale yéen ak waxtaan bi mu nekk 28 euh, Pro TV di leen ci gunge ci li nga xam ne moom mooy xew ci jiirub ñaar ràkk yëpp incha allahu rabbi ñu ngi ànd ak équipe technique ñu présenté leen ko ci présentation bi di jaxate la ci caméra bi ñu ngi ci ànd ak Talla Samb Serigne Mbacke Fall ak Bekaay Ndiaye fas yéene leen dëgtal lépp loo xam ne xewee na fa ca Ndar bi nga xam ne ni foofu la màggale ñaari rakka yi édition ñu ngi ko ko tuddee Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke juróom-ñaareelu xalifam Serigne Touba. jamono ji. waaw waaw waaw waaw tubarkalla macha allah moom fi mu toll nii wax dëgg yàlla am lépp moom yemu na Serigne Touba jàpp na leen lépp ndax lu jiitu loolu demoon nañ demoon nañ ndar euh, saytu dëkk saytu saytu dalluwaay yi saytu hôtel yi yi nga xamante ne yëpp wax dëgg yàlla am kenn ku ci nekk boo ñëwee des na la mën a dalal wax dëgg yàlla am te tamit. Euh, waruwaay it wax dëgg yàlla am jàppandi na lépp moom suñu borom daf na ci taw feex ñu mhm. ngi dégg sax ngeen annoncé ne place yi des na ba léegi ci waruwaay yi waaw parce que euh, ñun euh, dañoo jàppoon ni sax xëy na mbooloo mi foo ko takk yegg na fa ndax daanaka boo dee xool Euh, yenn gox yi nga xamante si nii sëñ Sidi Mokhtar nekkoon na fa muy demee ne ay Gumind ba ci yeneen dëkk yi demee ne ay Tawfeex ay Kër Ngànna yooyu yëpp fi mu toll dañ fa yabal oto ñu dem fa. waaw moo waral nag euh, mbooloo mi nga xam si nekkoon nañ fi mbooloo mi bari woon na takku na takku goo xamante si nii euh, dañoo dem ba ci biir sax ci ko loolu dañoo yokkaat oto yi dañoo yokkaat limu oto yi ñu yoroon. dañoo dem ci dañoo dem wutiwaat yeneen oto indiwaat fi ngir bëgg képp ku fi nekk rek da daal di dem ci loo demeen boo xamante ne ci anam bu rafet lay doon laaj benn dërëm doo paas doo def dara te boo demee danañ la dalal dal bu mucc ayib doon nga ko wax léegi xool ngeen dem jiitu ngeen fa xool lu yàgg bërëb yu dalukaay yi ndax ren am ngeen ci xel mu dal parce que at mu jot gis ne ne day manqué ndax leen euh, am ngeen ci xel mu dal waaw xam nga euh, mbooloo moo mel noonu parce que boo ñaare boo dee dem euh, li ngay war a soxla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xëy na lépp du du mën a du mën a yem waaye nag ñun lii nga xamante ne jot nañ koo ma ci mbooloo ñi nga xam ne am nañ ko ak ñi nga xam si ne jóge nañ fi ngir dem ñun jàpp nañ ni euh, lañ yor foofa danañ leen mën a dañ leen des na leen mën a dalal foofu ci ci ci daluwaay yi. Mhm. waaw am ngeen ci xel mu dal nañ ci xel mu dal wax dëgg am tey tamit nag buñ demee mbooloo mii nga xam ne si ne jël nañ leen fi yóbbu leen fi danañ leen saytu yóbbu leen ci dalli euh, toppatoo leen ba kenn ku ci nekk fa nga war a mën a nekk da nga fa nekk. ñi départ ci buntu kër gi yaakaar nañ danañ am euh, tamit benn escale fa li nga xam ne moom mooy Màkka Biragay. waaw danañ fa danañ fa def benn escale bu ñu fa demee ñoom it danañu dalal foofu ñu wàcc xéwlu fa Euh, bu ñu paree ànd ak mbooloo mi euh, yóbbu ndar. sëñ ma tub sëriñ ne tax. lu bañoon ba yóbbu ko dafa yokk. lam daan bëgg la bëgg lam daan si Tuuba. bàyyi sëriñ Saali woo. borom lagan borom ngi jaan borom tay ba janatul mawa borom umul quran usnal maab ku sopp seex ni defal ni mu màggal borom jàmm gi borom jamono alimul xabir usnal maab sëriñ saaliw sa baay goreel nanu sëriñ bi man yaa ma gën yaa gën ki gën ki ma gën lii nangu naa ko waaye yow dong laa ko nangul ku sopp seexul xadim bi man yaa ma gën Tuuba sëriñ bi man yaa ma yaa gën ki gën ki ma lii nangu naa ko waaye yow dong nangul sëriñ bi yaa yew ah. yaa mën a yeew ba duutu fa jub teraanga nga yeewe as pinti pantanga ma ah, ku sëpp Seexul Xadim jugul taxaw magal bàyyi Sëriñ Saali woo mbégte ànd ak yéen ba tey ci caravane bi nga xam ne moom moo jëm Saint-Louis caravane euh, parrain bi nga xam ne moom mooy Serigne Sidi Mokhtar Mbacké njabootam nag ñoom ñoo fi nekk ci euh, ci kilifteef nag Serigne Moustapha di xalifab euh, Guy Mbindi xalifab Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ñenn ñi nga gis nag ci ñooy mooy waa Guy Mbindi ñoom ñooy yekk noonu waa kër Serigne Abdoul Aziz Bara ñoom bokk nañ ci ñi fi teew Serigne Baye Karim Mbacké moom mi nga xam ne moom mooy xalifab Serigne Abdoul Aziz Bara waaye ñi ngi fii nag ci Maka Bira Gaye Maka Bira Gaye nag di dëkk bi nga xam ne at mu Euh, moom mooy dalal délégation parrain bi ci benn escale boo xam ne dañ koy def mën a mën fee dalal euh, gan yi mën a bernde mën a añ ba pare julli tisbaar ba bu ko defee bu ñu jullee tisbaar pare def fi benn waxtaan bu ndaw xanaa rek euh, ñu ngi tamit ci seen ci ay kilifa ñu bokk ci délégation bi ñu ngi fii ci Maka Bira Gaye bokk na ci étape bi nga xam ne moom ngeen fas yéene teew fii ci délégation bi ngeen ànd waaw man maa ngi tudd sëñ Abdou Lahat di jarbaatu sëñ Cheikh di Moukhtar mi nga xamee nii moom lañ jagleel bis bi ñi ngi ànd ak señ Moustapha cortège bi mi ngi jógee Touba bi ñu ñëwee jaar nañu Louga ñoo ngi fii ci Makka Makka fii la ñuy defee escale sëñ baa ngi nii agsi na mu ngi ci jàkka ji di julli su paree soog a ñëw ci bâche bi. bis bi nag tey ku gis cortège bi xam ni sëñ Cheikh Seydi Moukhtar moom moo aayee. ci Makka Biragay nag fi nga xam ne moom la délégation parrain bi yegg si daal di fas dallu lu toll ci euh, xaaju waxtu rek. bu ko defee nag euh, ñu ngi jàkkaarloo euh, toog ci jotaay Serigne Djily Mbacke moom Serigne Mbacke Madina moom mi nga xam ne moom moo dalal Serigne Moustapha moom Serigne Sidi Mokhtar Mbacke moom mi nga xam ne moom mooy parrain édition ren ñaar rakka yi xanaa rek euh, ay kàddu yoo xam ne ni maanaam dañ ko baaxee taalibe yi ci bésub tey bi ak fi nga xam ne moom mooy bi Màkka Biraage bismillahi rahmaani rahim tabaarakallaahu leen di jaajëfal ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a koy dox di ko liggéey ñu ñaan ñaan tawfeexi Sëriñ Tuubaa yàlla na leen ci dal tubaarkàlla bis bii nag ngeen ñëw mooy bis bi nga xam ni mooy ñaar raak yi nga xam ne Sëriñ Abdou Khadre Mbacke moom Sëriñ Mbacke Madina moom Cheikh Modou Moustapha moom Xaadimu Rasuul da ko taxawal fii ci Màkka Baraagi nga xam ni lim ci jublu mooy mboolem njabootug sëñ Touba gi ñaari rakkay ndar yooyu di bis bu mag boobu nga xam ne ci la sëñ Touba daande woon bi kun ko ci jox rek njabootuk sëñ Touba gi tudde la ko ñoom sëñ Abdou Khadim Mbacke délégation boobu moo dalal leen fii xam ngeen ne délégation bi nga xam ni mooy délégation bi Serigne Sidi Moukhtar ci njiital Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Sidi Moukhtar bi ñuy agsi rek sous préfet moo ànd ak délégation bu mag ak chapeur ak gendarmerie teeru ju leen tabaarakalaa bi ñu agsee gis ngeen leen agsee noonu rek sëñ Moustapha Mbacke yëkkati na kaddu yu am solo ca matale waaye ci kaddu juróom-ñaareelu xalifa Serigne Touba ku ne xam ko bi ñu ko yëkkatee muy kaddu juróom yi sëriñ Sidi moom sëñ Abdou Khadre Mbacke ñu pëstéef bu mu ciy wane ak bëgg ak taxu tax mu woo yi bi ñu ne ak li wër Louga lépp ak mboolem dawaayir yi ñu àndante ak moom euh, teral gan a kon bis bi daal loolu mooy sabab si mooy fas yéene teral waa kër Sëñ Tuubaa ak liggéeyal Sëñ Tuubaa ak feeñal euh, bëggub baayam di Serigne Sidi Mokhtar Mbacke ak mbégteem tabaarakallaahu ak pastéef bi mu am ci liggéey Cheikhoul Khadim loolu rek la. Euh, mu nekk kon euh, kàddu yoo xam ne mi ngi bawoo ci Serigne Djili Mbacke moom Serigne Mbacke Madina ah, moom la ñu fi gis mu toog yi nag euh, fas yéene tamit bu ñu ba pare rek daañu ñëwaat ci moom mu ñaanal taalibe yi ko ñu dégguwaat fële jëm moom mooy ndar fa la ñuy amalee nag ñaar rakk yi délégation comme ni ko waxee rek at mu jot moom moo fi nekk di dalal waa njabootu Serigne Touba gi ci bés bi nga xam ne nii moom la ñuy waajalee ñoom. Bamba jaaxal leen ñu delloosi ko ah yóbbu ko njaare ñu yóbbu ko njaare ñu yóbbu ko njaare. mbokk yi kon ñu ngi am mbégte ànd ak yéen comme ni mu ko waxee rek gannaaw bi ñu toppee délégation parrain bu édition 2018 bi muy euh, parrain bi nga xam ne moom mooy Serigne Sidi Mokhtar Mbacke nekkoon juróom-ñaari xalifa délégation bi nga xam ne kuréel waa kuréel ñaari rakka yi nag ñu ngi fii ñoom ñooy accueillir nag ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, délégation bi ñu nag dal leen a jiitu maa ngi nag ak euh, sëñ Lamine Gueye bokk ci kuréel bi moom mi nga xam ne donc am na maanaam lu loo xam ne dañu ci leeral sëñ ñaari kaat balaa gan yi yegg si naka ngeen leen di fas waajale alhamdulilah gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi dellu yeesal sunu pas-pas jëm ko ci sëriñ bi li ñu mën a wax daal mooy njabootu sëñ Sidi Moxtaar taxaw nañu ci mbir mi ndax sëñ Xaadim ñëw na fi ci ay fan yu bari nekk ak ñun kuréel bi wane na ni waa Ndar yëpp waajal nañu lii dugal nañ seen loxo di leen seenu ñu ñëw ak jàmm fekk ñu ci jàmm teluwaat ci jàmm mm-hmm. ndar daal mobiliser nañu si lu wér pour xaar njabootu sëñ Sidi Moxtaar mi nga xam ne ndar kenn la woon ci moom ndar bi dëkkam la woon ndar fu mu xam la woon waaw loolu daal ñu ngi ci Pape euh, sëñ Sidi. kon daal choix euh, parrain bi ren am na solo lool. Euh, am na solo doublement parce que ñun ndigal li ñu ngi ko jëlee sa sëñ Muntaxa moom moo jox ndigal pour ñu tuddee sëñ Sidi Moxtaar sëñ Moussa dafa moom du ci ŋàng du ci wax tànk demuñu ci sëriñ bi. ñu ànd ak sëñ xaadim ak sëñ galas kantoom dem sëñ muntaxaa sëñ muntaxaa rafetlu ko ñu am ngeen ci ndigal pour def ko loolu moo tax ñun ñu am fonk bés bii taxaw ci pour def ko na na sëriñ bi bëgg woon ci ñun kon li mu la mën a xamal rek mooy ndar yëpp waajal nañ ko te pare nañ ko. te pare nañ ko waaw. jërëjëf sëñ Lamine Gueye maa ngi nag ak sëñ Moustapha Diakhaté bokk tamit ci kuréelu ñaar rakk yow yëf mel na commission accueil bi eh, mi ngi ci say loxo eh, naka ngeen di fas yéene waajal parce que délégation bi ren am nañu jot ne dana ëpp na mu daan dikkee par rapport li ñu gis ci yoon bi. waaw jërëjëf xanaa ma leeral tuuti rek ni commission culturelle bi la. Ah, waaye co daanaka mooy màggal gi yëpp mooy akay mooy lépp. Ah. waaye ñu ngi sant yàlla du julli si yoon ci Yàlla di gërëm Cheikhul Khadim di ñaan yàlla Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool tànd ak wér ak Cheikh Jëmb Fall. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee rek ñu ngi nii ci akay bi di xaar waa Touba waaye ñu ngi ciy sant yàlla ba ñu suñ boroom mayee ñu fekkewaat màggal gi. tuppeeke koo xam ne kenn la woon si ñun suñu soppe la woon mhm. doon koo xam ne moo bëggaloon boppam kuréel ñaar rakkay muy Cheikh Sidi Mokhtar mhm. kon sëñ Moustapha mi ngi si yoon wi moom ak njaboot Cheikh Sidi Mokhtar yëpp ak Touba yëpp mhm. ñun ndar génn nañ di leen dogale pour ñu ànd dem ci daluwaay ndar nag ku ko xam xam ni dëkku teraanga la mhm. bu ñuy wax teraanga ba ñëw ndar fii la cosaanoo mhm. fii dafa doonoon dëkk boo xam ni Serigne Touba ci boppam moo ko tànnaloon boppam magi ndar ñi dañ ñëw nett ni Serigne Touba dañ ne woon ndar ca kanam ñu ngi ko mbàkkee ndar ca kanam mu ne waaw ndar ca kanam ñu toog ba a ak waxtaan ni ah kon de ndar ca kanam la jëm ba a ak ñeneen ñi ne déedéet ceeru ndar ca kanam lay feeñ waaye tey bu ñu xoolee gaz bi fan la feeñ ci ndar mm. pétrole bi fan la feeñ ci ndar dafa mel ni mm. waxi Cheikhul Khadim bi mi ngi waaj a ñëw waaye waxit na tamit ni bu ngeen xamoon li yàlla def ci ndar ormal suuf si nga xam ni Sëñ Tuubaa ci boppam wax na mag ñi ni bu ma doon taamu fu may gana si waat àddina ndar laa koy defee kon dëkkub Sëñ Tuubaa la ñu ngi gàttan waa Tuubaa te xam ne fii Tuubaa ndar la nekkatul ndar rek kon loolu la ñu amoon si lu ñuy barkeelu rek waaw xanaa bala ñu jëm ci édition spéciale bi mu jëm ci commission bi nga géré muy culture bi am na leen lu bees lu xam ne dolli ngeen ko ci laata gan yi di yegg mhm. euh, rek xam nga màggal gi lu ko wuutale ak yeneen màggal yi mooy une semaine la une semaine que màggal gi euh, xëy na sëñ Abdou Lahad moo ñu ci dimbali ndax moo ñu waxoon wute leen jigéen ja bis muy cheikh muy soxna jaariyatullaahi moom bis boo xam ne bisu alxuraan bi la woon weesu na bërki démb waaye dañ doon jàpp ni sëñ Tuubaa bu doon dund ñooñu alxuraan dina leen teral defal leen i xéewal moo tax képp ku wàcc alxuraan ci at mi dañ lay bernde dañ lay teral dañuy teral sëriñu daara yi keroog ñëpp ñëpp képp ku dëkk ndar rek sa xol sedd ndax si bisu alxuraan bi waaye ngontal maam Cheikh Rafal ndax tuur buñ nee ndar ni maam Cheikh Rafal sëñ Tuubaa yàgg na fi yabal maam Cheikh Rafal te ñëwagu fi nga xam ni muy dëkkam maam Cheikh Rafal am fi ay kër am fi ay titre foncier nekkoon fi ba ci lycée Charles de Gaulle rek titre foncier maam Cheikh Rafal moo ko jaay tubaab yi kon ñu ngi liñ ci sof daal ci euh, mbir mi daanaka moom mooy euh, accueil bi daawoon na ci am euh, la nuit du parrain tey ci guddi la suba la prière du 5 septembre présidée par l'imam sëñ Mamour Mbacké xanaa di ñaan rek ñëpp fekk ak jàmm ak salaam te it di xam ne màggalu ndar gi moom cachet particulier la am. Mhm. màggal goo dem da ngay dem ci sa kër mbok wala sa kër sëriñ ndar nag da ngay dawal sa oto ba ñëw ni ana waa kuréel ñaaraake ñun ñu ngi nii ñun dama màggal si ñu dalal la di la bernde ba ba ni nga fi jógee. Mhm. kon fii nag loolu moo ñu fa ndax dëkkub Cheikhul Khadim la. jërëjëf jërëjëf sëñ Moustapha mooy fàttali mbokk yi nag ñu ngi fii nga xam ne donc moom mooy euh, Saint-Louis gis ngeen ko nag euh, bu ngeen xoolee décor bi ci gannaaw euh, da ngeen daal di xam ne ñu ngi nag ci dëkkub teranga saint du Sénégal Saint-Louis bi nga xam ne ak teranga ak mën gan fii la fekk baax maa ngi nag ak le président ak le jëwriñ bi kuréelu ñaar rakk yi sëñ Ahmed Fall euh, xanaa rek ay kaddu yoo xam ne bala parce que yaa ngi ci bërëb bi nga xam ne ni yaa ngi teeru gan yi euh, ana noo leen fas yéene waajale ah, waaw salaamaaleykum bismillahi rahmaani rahim fii du nekk moom sëriñ Moustapha la nuy ak sëriñ Bass Abdou Khadre ak euh, sëñ Mamor euh, bu Cheikh Mouhamadou Mourtada waaw doon egsi na waaw waaw waaw yegsi nañ kon mbokk yi gis ngeen euh, sëriñ bi moom moo yegsi noonu sëriñ Cheikh Thioro dégg nga moom moo jiitu kon nii ñu fas yéene ànd ak yéen rek sëriñ Cheikh Thioro kon gis nga moom mooy nuyoo noonu ak waa kuréelu ñaari rakka yi comme mi ngi noonu di romb Euh, sëriñ bi nag euh, ki ba tey moom mooy yegg si nii euh, mi ngi noonu ci gannaaw ñu fas yéene ñu ngi noonu wàcce nañ verre yi sëñ bi moom moo nekk noonu di nuyoo ak waa kuréel ñaar rakk sëriñ Moustapha ñu ngi lay ñu ngi koy bu baax a baax moom moom moom moo jiite délégation bi ndax moom mooy taw Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke moom mi ñu tuddee ren édition ñaar rakk yi waa kuréel sëñ Moustapha gis nga mi ngi noonu di nuyoo ñu bàyyi sëriñ Lamine Gueye tamit mu ngi noonu di nuyoo waaw waa kuréel bi dafa mel ne kontaan nañ lool kontaan nañ lool boobu Moustapha wax dëgg yàlla kontaan nañ lool euh, jëmm ji nga xam ne ku ko gis gis Cheikh Sidi Mokhtar uh-huh. ci tey gi ci dal gi ci amuk taalibe gi uh-huh. nga xam ni délégation bi yëpp xoolal li fi nekk ci oto cortège bi macha allah Touba yëpp ñëw nañ kon ñu ngi ciy sant bu baax a baax Cheikh Sidi Mokhtar bis nag day nuru borom uh-huh. mais ku xam Cheikh Sidi Mokhtar xam ne bu wootee lislam bi yëpp koy wuy ñii ñu muridi rek uh-huh. ñëpp xoolal délégation bi à uh-huh. perte de vue ñu ngi koy gis kon daal wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant kon ñu fas yéene waaw jërëjëf euh, Serigne Moustapha Diakhaté jërëjëf kon mbokk yi gis ngeen Serigne Moustapha moom moo nekk noonu euh, def benn euh, pause bu ndaw gis ngeen kon cortège bi fa mu toll macha allah Euh, comme ni nga ko waxee rek euh, délégation bi tay moom euh, daan na daan na tamit gis na ren bi moom macha allah ëpp na leen fi daan seetul ci ay nit ndax jëm ji jin ko tuddee moom moo tax. koo xam ne bu daan woote ci lislaam àdduna bi yëpp dañ ko daan wuy si tey nag bu waa kuréel bi jëlee ñaari rakk yi dippee ko ko yaakaar naa tamit loolu dana feeñ ci xel yi ci xol yi dana feeñ tamit ci jëmm jooje kon nag xam naa mbokk yi dañuy daal di ne ba yegg ndar rek àggale ci des ci ziyaar ak ci ay waxtaan jërë ngeen jëf. yi seetaan 28 Pro TV ñu ngi kon am mbégte ànd ak yéen ci seen spécial euh, ñaar rakka yi nga xam ne donc ñu ngi koy amal fii ci Ndar Ndar nag buñ fay dugg nag kon buñ waxee Ndar moom mooy bu ñuy dugg ci pont bi euh, gis ngeen ne délégation bi nag biñ leen accueillir fii ci buntu Ndar ñu ngi ne def convoi nii fas yéene jubali euh, boori gouvernance foofu nag xam ngeen ne fa la histoire ba xewee euh, ci kanam nag gis ngeen euh, benn délégation boo xam ne nii euh, cortège bi ñu ngi noonee ci kanam gis ngeen Saint-Louis du Sénégal Saint-Louis première capitale de l'Afrique occidentale Saint-Louis bi nga xam ne donc capitale de l'Afrique occidentale française la muy AOF dalal na ci ay histoire am nañ ci ay histoire yu bëree bëree bëri bokk na ci li nga xam ne moom moo fi amoon daaw mu nekk victoire bu mag ci yoon bi muy victoire boo xam ne nii ñëpp dañu am mbégte ne loolu day wane sëñ Bamba liggéeyam toujours ca kaw rek euh, ba ñu ko gisee waaye nag dafa mel ne euh, li nga xam ne tey moom lañu gis muy jëm ci cortège ak délégation euh, musuñu ko gis wala boog juróom-ñaari xalifa sëriñ Touba Mbacke Xaadim Rasul koo xam ne bu daan wootee l'islam bi yëpp àdduna bi yëpp dañ ko daan wuy si moom nag moom moo moom la ñu tuddee tey édition yi kuréel ñaar rakka yi ñoom nag dañu cee am ndigalu sëriñ Mountakha Bachir moom mi nga xam ne moom moo soññee na nañ ko tuddee nag kenn koo xam ne kenn la woon ci moom daan ko liggéeyal ba tey liggéey bi ab si ci loxoom muy sëriñ Mountakha ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér Saint-Louis du Sénégal moom la ñuy dugg si nii moom la nekk nii fas yéene fee nag dalal parrain bi sëriñ Moustapha Mbacké moom sëriñ Sidi Mokhtar moom moo jiite délégation mbokk yi kon ñu bàyyi leen rek ngeen dund ambiance boobu lee fii ci Saint-Louis fii ci Ndar fi nga xam ne fii la lépp xewoon fii la victoire bi daal di amee ndax euh, dégg ngeen bi ñu wootee rek fekk na fi ci ay kilifa yu bëree bëri bëri waaye moom dafa jël rek xalimaam daal di bind li nga xam ne moom mooy ñetti baatu dëgg yi wax ne yàlla kenn la jurut kenn kenn juru ko dëgg rek moom mooy feeñ te dëgg rek moom mooy mujj yi loolu rek moom rek moom lañ leen indil tey fas yéene leen koo dëgtal mbokk yi seetaan 28 Pro TV am nañu mbégte ànd ak yéen kon dañ leen di bàyyi. alhamdulillahi alkarim musliman ala istiqaali bi furudin wa sunan alhamdulillahi alkarim musliman ala istiqaali bi furudin wa sunan waaw kon euh, jërëjëf mbokk yi yéen a euh, fi nga xam ne nag moom la ñuy waaj a yegg si nii nag moom ngeen seen noonu muy pont Faidherbe pont Faidherbe nag histoire la ci ndar ndax euh, biñ ko liggéeyaatee yàggut dara dañ koo gën a yees la waaye ndax li mu daan recevoir ak li nga xam ne noonu la fi askan wi daan dikkee tamit da daan am ay jafe-jafe bu ñu yeesalaat ko liggéey sëñ Bamba Xaadim Rasool la moom moo tax parce que askan wi fi ñëw di fi dajaloo saa su ne di fi mag euh, ñëw moom moo tax ñi yeesalaat ko liggéey ci liggéey bu rafet euh, ñu ngi ànd ak nag euh, Baaxe Cuun géwël Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul Baaxe tey ne mel na ne Ndar ma yëngu na nag waaw ci dëgg dëgg dëgg Ndar yëngu Ndar yëngu na képp koo xam ne taalibe nga ak koo xamante ne sax doo taalibe murit Euh, sa maanaam yow sa bopp ah, yëngu nga ndax Serigne Touba bis bi dañuy fàttali le 5 septembre 1895 bis bi nga xamante ne Serigne Touba génn na ana fan la génn euh, ci këram gi nekk Mbacke Bari këram gi nga xamante ne moo nekk Mbacke Bari moom Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasool bi mu jógee Mbacke Bari ndeysaan den Jolof ba mu jógee Mbacke Bari Jolof. jëm jeewal ndax ni euh, sama waa kër yi tàqale naa ñoom njaboot ga tàqale nan maa ñoom mbir yi tàqale nan maa ñoom ndeysaan kenn ku ci nekk di daanu gouverneur général yebal armée bi yebal ñu jël si Serigne Touba Serigne Touba jóg ànd ak ñoom daal di foog Serigne Fallou ak Cheikh Mamadou Moustapha ndeysaan daal di leen di dénk seen baay maam Thierno dénk naa leen yàlla ak maam Thierno Ibra Fati ndeysaan ba mu demee ba toll ak jeewal ndeysaan gawar gi ne ko yi itam mu ngi lay day fanaan foofee lay wax naan foofee lay wax naan fa ayasaminillahu inda jeewali iblisa isnaadaytuhu biya wali waaye ba mu fa jógee nag daal di dugg si nag ndar ba mu duggee ndar naa ngi nii ci compo faydar bi ba mu ñëwee ba ndar moom sëriñ Touba fekk fi juróom-ñett fukki sëriñ ak ñett sëriñ Tuubaa nekkeel ñeent numéro 4 waaye gouverneur général fii nu jàkkaarlool mu gouvernance sëriñ Tuubaa xaadim rasul daal di ñëw taxaw daal di seere ne qul huwa allahu ahadu allahu samadu lam yalid walam yolad walam yakun lahu kufuwan ahad loola sëriñ Tuubaa seere woon moo waral bis bi tey nu bàyyi sëriñ sëpp daal di jiital maam yi doon ak Cheikh bàyyi bas ak baara maam yi bas ak Cheikh Mbàkke ki nga xamante ni moo taj moo taj mboolem addina daal di wax nag ni sunu borom moom na ko addina àddina ak alaaxira sunu boroom def na ni ginnaaw Muhammad jiitalu kenn ku dul moom Serigne Touba xaadima rasul kataba rabbi annahu qaddamani ala jamil alamina sunu borom daal bind na ni jiitalu kenn ginnaaw Muhammad rasulullah ku dul man. looloo waral ndeysaan gouverneur général a ngi nii boobu fédéral baa ngi nii Serigne Touba rasul sunu borom fay na ko njaboot gaa ngi nii Serigne Sidil Muxtaar nan ko dara jaale si moom lañ ko tuddee moom moo lépp waaye saahibil fadilati xalifa sana kullu murid Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg te lépp ci ndigalam lañ koy defee noo ngi ànd ak sëñ Moustapha Mbacke xalifa sëñ Baara xalifa sëñ Sidil Makhtar waaye ñoo ngi ànd ak njabootuk sëñ Baara gépp ak njabootuk murid gépp ak mboolem umal islam bi ñu dugg si ndar fii nag ci pont Faidherbe bi fii la mbir mi xewoon fii fi la mbir mi xewoon fii fi la mbir mi ana mbir mu fi xewoon fële le drapeau de kan moo ko yëkkatee Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul nan la ko yëkkatee seere ba mu seere woon ci bureau bi ci ndar moo waral suñu jàmm ji tey moo waral suñu borom wax ko ni ko Ahmadou mu ne ko Mbàkke mu ko may naa la lépp loo bëgg mu ne ko lépp mu ne ko may naa rasulillahi alayhi salaatu wasalaam may na ko rabbam ma màgg mu bu ëllëgee loolee na la ko may mooy nekkal ga mu nekkaleen rasulillahi fii ci kaw suuf daa di wax na ni man de xaadimu rasulillah ci kaw suuf maay xaadimu rasulillahi fii ci àdduna ak ëllëg yawmal qiyaam képp ku mën a doon nga xamal ni man Serigne Touba maay ki la jiitu ci liggéeyal rasulillahi alayhi salaatu wa salaam kon mbokk julli noo ngi fii ci pont bi kon ma joxewaat micro bi ba ci kanam bu ko defee ñu dellu soir sama xol dafa sedd. moom la def ci histoire. Euh, mbokk yi nag bi ñu génnee nag fi nga xam ne moom mooy palais gouverneur bi ñu ngi nag yéeg nag beneen pont muy pont Guet Ndar bi fan ñu jëm nag moom mooy fi nga nii fa la ñu baaxoo Euh, le parrain de cette édition muy euh, édition bu nekk muy Kër Masouran Souran xam ngeen ne kooku moom moo baaxoo di dalal parrain yi foofu nag loolu kenn du ko teggi ndax kuréel ñaar rakka yi ñoom dañuy jël engagement ak lépp loo xam ne maanaam moo war ci parrainage bisu tey bi hôtel yi ñu romb népp nag euh, hôtel la yoo xam ne nii yu ci bëri sëriñ bi foofu lañ koy dencoon boo gisee biir palais gouverneur nag ca biir am na benn néeg boo xam ne foofu lañ koy muy chambre numéro 4 foofu nag maanaam danañ fa dem mbokk yi wan leen fa histoire bi dëgg-dëgg nan la demee woon waaye ci biir gouvernance am na ci ay euh, mbir yoo xam ne maanaam xew na fa ñi ci ne fii la julle woon ak fii la julle woon yooyu yëpp daan leen ko indil kon xam ngeen ne bi ñu génnee nag pompe ndar bi hôtel bi nga xam ne tey moom mooy hôtel Le Rognon ci biir hôtel bi foofu nag moom mooy place bi nga xam ne dëgg-dëgg fa lañ ko euh, euh, gardé woon ci cellule boobu noonu ci bër benn instant laata muy wuyu ji gouverneur nee nañ sax fa la daan baagante nee nañ fa la daan bindee maanaam am na xasida yu mu bind ci euh, lu ci bëri maanaam tamit danañ ci ànd ñi nga xam ne ñoom ñoo yore euh, commission kon nag mbokk yi kër El Hadj Massouran Souran mi ngi nii moom la ñuy dugg noonu bii ci biir Guet Ndar la nag euh, nekk mbokk yi délégation parrain bi muy Serigne Moustapha moom Serigne Sidi Makhtar Mbacke kër gii ñuy dal nag ci woon moom mooy kër parrain bi kër gi nga xam ne moom mooy dalal parrain bi muy El Hadj Massouran Souran waaw menn ma moom moo baaxoo ba mu ko ba mu fiy nekk ba léegi njaboot gi nag ñoom ñoo jël relève boobu ne ne nan ko dalal kon xanaa rek du ñàkk am na kàddu